doon daw yoon di fii waay lu ci ñaar seen scandale du jour de ce lundi 25 décembre 2023 ginnaaw bi coow li bëree Ndiakhou Zo daal di jóge ci ah, Sidi Diop daal di dem ci Waly ne ko bay ma oto coow li bëri mu demaat fa ñu jox ko njëgu oto mu génnaat faax ñu gis ni ah, barki ginnaaw bi Wally tëggee fële ca Gambie dafa dem sur chaîne Wally Seck daal di ne ñëw naa bokk nañ dem seetaani li nga xamante ne kàddu yi nga xamante ne njàpp joo wax na ko ne ñëw na te du demaat walla buñ ko dangul mu nekk fi day dellu France. bu bees sama baay gi laa ko tuddee fi mu ne nii moom papa man ak yow ba ici le bon waa ñëw na donc man la amuñu ba ñaar léegi nag toujours boobu nag toujours toujours. si yàlla booy booy sax pare wóor yoo booy booy. non non non Thank you.

bëgg na defar man ko ne fecc moom spectacle sama néew si léegi sa papa ji su la bàyyi rek mag moom ñoo bokk fii bu des biir dama ñu man bàyyi si léegi Gambia doo ko am ko man ak yow ba issue repose man personnellement gomuko parce que ku wor tay man na warat suba ku joxe fi bakkan man na na wat bakkan suba nday njaay banaya bu mu jugee ci euh, Sidi Diop daal di dem ci wadi Ballago sek mom mi zo na si ñi togon ci plateau yi di wax ci nday njaay banaya di wax ni gorewul di wax ni nit du fatte dembu waa njàppuzoo boobu tey moo ñëwaat def la même chose dara changé wu ci Ndeye Ndiaye Banaya sax moo ko tane ndax Ndeye Ndiaye Banaya dafa ñëw ne ñëw naa bokk moom si ñaan bi la ko njëkkee may ma njàppuzoo mi doon critiqué na yaba Ndeye daa ñëw defaat lu raw li Ndeye Ndiaye Banaya def dafa ñëw moom dafa imposé bopp ne ñëw naa man a yow ba ici repose waali tontu ko ne ko bu ma indil benn problème bu fi indi benn problème ndax nag waali dégg na polémique yi dégg na wax yi te waali il est très informé lu waaye wax si moom mu koy dégg xam na ko te il est très te xam na bu baax lii xaw bañ na ba nee na ko bu ma indil benn problème mu ne ko papa du ma la déglu ndeysaan dignité animu ani ngor Amady Badiane nag confirmé na ñëwam ci biir euh, Faramaren ci biir Faramaren léegi la nekk ndax ginnaaw bi Wally ne bu ma indil problème daf ko nii sagam nga ne doo ma déglu léegi xëccal ki nga xamante ne moom moo yor responsabilité ci wàllum a ah, fecckat muy Amady Badiane amadi ne ko ñëw nga feccal lu muy def leneen la la koy def wàccal du ko def ñibbil du ko def non non fi bokk mukk Amady du ko def Waly du ko def boo gàttee sa xel bo wala boo amee sa ambition wala sa ñàkk gore bi ba ñëw bu fuuf ñoom duñ la dàq parce que mbay si wax na ko nee na ñoom duñu dàq kenn mais duñu mës a yëkkati seen téléphone ne kaay bokk si ñun ku ñëw si yow nag ku ñëw sa kër nag wax dëgg fa yàlla balaa moo dugg ci bunt bi nee na la mën a yow ici repose waaw léegi kooku nooy noo koy dàkkee doo kooku mënoo ko dàkk situation oblige njàpp joo ndekk foofu ndax nag bu ñu xoolee sur scène Waly Ballago Seck ñàkkul ñuy fecc bu dee fecc Amady Badiane moo fi dàkk fecc bu dee fecc Armane Ndiaye wérul dafa dof ci wàllum fecc Ndeye Ndiaye bànn yaa wax yi noppi awa nag kooku moom kenn waxatul ay waxam léegi nag njàpp zoo ñëw na njàpp zoo ñëw na nee na day bokk force li ngay xasee nit ki tey subaa yow nga dem di ko def y' a pas d' exemple sénégalais naa fekk nañ naa fekk boo xamante ne ku nekk naan la waaw nit ki fi la fi la arrangé fa ngay nekk mais moom jàpp soo tey la xam ne sii di arrangé wu ko bi muy toog di défendre di naan sama papa la sama papa jàpp sama loxo teg ko ci loxo di ne ko may naa la ko sama doom la sénégalais naa fekk naan waaw nit ki fi nga nekk fa léegi ana ngor ana kàddu adduna nag ci la commencé bi mu yàqoon nag mooy bi nit di wax ba pare waxaat te dara du ko ci fekk nit di joxe bakkanam di ko nangu à tout moment nit di wax nit ki papa à tout moment mu changé version di wax nit ki yaay mu changé à tout moment version moo tax bu waxee waali mën a yow ba ici repose ah kon koy xaalis la ñuy topp mën naa am tax waali balaago sek taali ne te yor na te mën na joxe loolu kese ka fa yóbbu parce mënul ne ñakk am lu mu fecc wala ñàkk tëgg bu ñu ko tëggal pour mu fecc ci Sidy moo ko fa jële amul dara lu ko fa jële lu dul l'argent xaalis kese moo ko fa jële ndax mun ba tey dégg kenn déggul ne Sidy lii la ko wax lu ko métti ba tax mu juge fa ne Sidy lii la ko def lu ko métti wala estafu Sidy lii lañ ko def ko métti ba tax njàpp soo fa sagam nag ju fen juge na fa nag ñëw na ci Wally Seck ah dana dal ak jàmm dalal ak jàmm njàpp zoo àdduna la dafa gudd tànk kenn xamul mais nag Sénégal dafa yàqu bëri na ay mafik xaalis la ñuy ku jug naan bu ñuy wax ku waat ci sëriñ saali wakk sëriñ Tuubaa te gëmuñu ci dara ndax ñi ñuy waate daanuñu wor ñi ñuy waatee daanuñu wax lu ñu dul def te ñoom lañuy ñuy waatee barki sëriñ Fàllu Mbàkke barki sëriñ Saaliw Mbàkke barki sëriñ Seydina Muhammad ci loo xam teguñu ko fenn te ñooñu ñuy waatee ñu nekk ay référence ñu ñuy waatee daani ñu wax lu ñu dul def gor bu jàppee du bàyyi boo ñëwee mu naan man sa sa deretu gor mooy daw sama yaram est que ñun am nañ deretu gor sax ndax Zeyna tey mu ngi ci temps bu gisee tele bu ko jox ay millions te booy dem sa na rafet tey man ñaan naa yàlla su ma fiy jógee di dem feneen nay rafet ba xam ne bu subaa su ma dajee ak temps damay kaf damay ree dama koy dox si su ma amee lu ma soxla wokk mais demin bu ñaaw won ginnaaw bu ñaaw boo xamante ne boo dajewaatee ak nit ki ti préfère suuf si màbb sa kaw ndax gàcce njàpp zo mënoon a dem ci waale mais ci njëkk ak taraanga mënoon a dem ci waale ci lu rafet ndax boobu ba léegi dégguñu sii di wax lu ñaaw dafa mën communication dafa mën nitam xaalis nag yàllaa koy maye te mu ngi si yoon bi yàlla baax mais dañoo faux sénégalais moo faux intérêt rek l'argent rek loo xam ne yaa ko mën a liggéey yow boo déggee attaché votre ceinture c'est grâce à ki nga bàyyi mais boo koy nay rafet papa kat ah man maa fi nekkoon gisatuma sama bopp maa ngi bëgg a xooli leneen nay rafet koo xam ne yaa toog devant tout les sénégalais ne sa papa la ne bu àdduna yëpp dawoon bàyyi ko yow doo daw bàyyi ko yow wax ma la daw de mais danga ko pëtëxal yow